mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi fm daleen ak jàmm ci seen émission euh, démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu wi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy fàttaliku euh, lu fi xewoon atum 2005 le 15 juillet ci la ñu jàppoon Idrissa Seck euh, ngir mbiram chantier Thiès njortu ne daal xaalis ba mu ca waroon def yépp defu ko ca loola daanu ci toftal jàngat jaar-jaaram ci wàll politique boobaak léegi ak fi mu ci tollu tey ñu naan mooy chef de l'opposition ak nekku ko am mbégte nag dalal ci waxtaan wi François Calixte Sagna secrétaire général adjoint bu parti réew mi ñu ngi lay nuy di la dalal jàmm ci démb ak tey. Euh, jërëjëf Fatou di kontaan aussi ci invitation bi nga xamante ne jagleel nga ñu ko. Hmm. jagleel ko aussi ñu war a waxtaan ci li nga xamante ne moo jëm ci suñu kilifa gu mag googu muy président Idrissa Seck. Hmm. nga xamante ne tey yàlla suñu borom def na ba mu quatre-vingt-huit ba léegi ak la ko jiitu yëpp. Hmm. lépp loo xamante ne jubal askan wi ñoŋal yëfu askan wi taxawu askan wi moo ko tax a jóg te ma kontaan lool aussi di rafetlu émission bi di nuyu suñu ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ñuy déglu. Mm. képp ku ñuy déglu it ak foo ñuy déglu yal na la yàlla defal jàmm. defal ñu nawetu jàmm. ndox mi bari meññeef bi bari te barke ñëpp fekke ko. te yàlla aussi may ñu ñu mën a bokk ci xaaj bi nga xamante ne ñoo jëm. tabaski di seentu tam xarit déwén. Mm, jërëjëf amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi François Karik Sagna li lay taal waxtaan wi mooy euh, fukki fan ak juróom weeru juillet atum 2005 la xewoon bis booba la ñu teg loxo sa Seck démb la ñu ko doon fàttaliku ci 15 juillet bi alors événement yooyu naka la ko euh, ñooñu Idrissa Seck dundee woon. waaw ni ñu koy dundee mooy déjà nekk koo xamante ne tey ñu ngi wu président Idrissa Seck ci lépp loo xamante ne mos na koo dal. Mm. te mu ànd ak dal li ko mos a dal yépp def cee mos a ànd ak dal teg ak tey te ne lépp lu ñëw rek ca yàlla la jóge te lépp lu am it ca yàlla lay dellu. Mm. donc euh, quinze juillet nekk bés boo xamante ne bés bu màgg la ñu koy màggal aussi ci yeneen réew yi. Mm. di ko màggal Sénégal ñun itam niñ koy fàttalikoo rek mooy benn kàddu ba mu ñëw président Idrissa mos di wax rek. mooy fii ba ba bi di jant bi di fenk kenn du mos a gis alal bu lewul ci lu ma am. Hmm. bés boobu ne woon bés bu rëy parce que keroog la ñu jàpp président Idrissa Seck ci loo xamante ne bokkul ak lañ ko daan tuumaal. nit ñi dañ daan wax chantier de Thiès mais ba ñu xoolee ba xam ne fii moom dara mosuñ ko faa gis dañ koo tuumaal loo xamante ne moom ci boppam waxatuma moom moo war a indi mënut a indi firnde yi wala warul wuti firnde yi mekk ka ko tuumaal ko waroon a wuuti mooy li ñuy wax atteinte à la sûreté de l'État. Hmm. foog naa loolu la ñu mentionné ci li nga xamante ne moom moo ko incarcéré envoyé ko à la prison centrale te it li tax ñu gën ko bëgg di fàttali ko mooy lim ñaar yim ñu mos a wax dara mosu cee dañ. Hmm. benn bi ci jiitu mooy teg ak dal bam ci àndaloon te pour que ñun ñi nga xamante ne à l'époque ñun ay étudiants la ñu woon ñu bëri fii ci Sénégal tey koo dégg tey mu naan Idrissa laa àndaloon wala Idrissa ne woon sama not mooy dal natu gii ko taloon nam ko dee woon ak lam ñu doon wax pour rassurer Sénégalais yi rassurer jeunesse bi daf ñoo waxoon ne la prison n'est qu'un moyen boo xamante ne moo koy rapproché à la présidence de la République mu ne kaddu goo xamante ne tey dafa nekk loo xamante ne dafa nekk yëfu kilifa Hmm. dama toogoon sax fan yi di toog maanaam est-ce que nakun ñu doon ba ma gisee problème yi amoon premier deux bu quatre bi passé ma xam ne discours kilifa daal jar nañu koy déglu parce que à l'époque bu ñu waxoon ne jóg leen hmm. musiba mënoon na xew hmm. mais pour mu dalal ñu daf ñu waxoon ne la prison me rapproche de plus en plus du pouvoir et du palais la République voilà waaw loolu daal mooy li nga xamante ne ñun nañ ko gisee démb ak tey mooy kilifa gi ñu àndal daal kilifa gu dal la hmm. kilifa gu bëgg jàmm la kilifa guy wut jàmm la hmm. te lépp lu ñu mës a wax it ñu ngi koy teg bët xanaa kay day yéex rek alors euh, est-ce que jàpp gi ñu ko jàppoon 2005 lu ngeen doon séntu la euh, comme niñ koy waxee vous aviez vu venir est-ce ko doon xaar Euh, maanaam période boobu bokk na sax man xëy na ma doon doog a commencé ci wàllu politique. parce que hmm. man politique ngi ko commencé dugg 22 avril 2004. la seet seet ma ne man daal ki nga xamante ne tey ñu ngi koy tuumaal la a top ba jëlee ko primature. Hmm. keroog daal discours ba mu def. ne le président de la république a pris la lourde responsabilité de se séparer. Hmm. de lui avec autant ou tant yoo xamante ne ñoom ñaar ànd nañ ko. loolu nekkoon lu rëy. Hmm. ku fëggoon Ablaye Wade fajar en deux mille wala en deux mille un ne ko yaa président Idriss Seck ñetti at rek ngeen nar a ànd ak ñeenti weer du ko gëm. Hmm. ku fëggoon Idriss Seck en deux mille wala deux mille un ne ko président Ablaye Wade ñetti at ak ñeenti weer ngeen di ànd ba ngeen jëlee nguur gi moom itam du ko gëm. ndax fi ñu jaar. ndax fi ñu jaar ak fi ñu jóge ak li ñu nasoon pour fa ñu waroon a jublu mais gannaaw loolu yëpp. kilifa gi Idrissa nangu na nattu bi nga xamante ne moom la ko euh, yàlla teg ak nit teg sax laay wax parce que nattu nit a koy teg boroom nit mu nangu nit kooku nangu ko jëmalee ko boromam xam ne boromam mën na ko ca génne mais ñun xaaruñ ko woon bañ demee ba ñu génne ko primature it gis ni nga xamante ne tey lu bëri ñu ko doon wax ci lu ñaaw ci moom xamoon nañ ne politique moom ñaar la rek ñaari pee la politique privilège prison ou ñu gis ne jóge na ci politique dem ci primature primature prison prison palais bi moo ci des mooy ñetti pays yi nga xamante ne wala ñeenti pays yi nga xamante ne tey moo nekkoon ci ñun mais xaaruñu woon ñu tuumal ko lu toll nii lu mën a yàq ab der mm. maanaam xaalis boo détourné par dara gënu tamit nga ne ci kër mm-hmm. ñu jiñaate sax ñu ne fukki dërëm réer na fi yow nga foy ba ñëw ñu ne la yow yaa jël fukki dërëm dara gënu koo métti est-ce que waa Thiès yam doon liggéeyal ca chantier yooyu boobu conviction lañ ci amoon. conviction maanaam parce que buñ ne conviction boobu lañ amoon maanaam xam nga euh, li ñu mën a wax mooy président Idrissa Seck. Hmm. ci li ma jàpp mooy chantier yooyu ci luñ ko ci mës a tuumaal it ba bés ni que tey noonu rek la mujj. jusqu'à l'extinction du soleil. Mm. aucun centime d'origine illicite ne pourra mettre au projet. beneen bañ ca tegu mooy la sëñ Cheikh doon wax rek bu la jamono àdduna tuumaale dangay ànd dal teg ak tey ba jamono setal la ku ñu xasa tuumaal moom xam nga du mën a du mën a du mën a du moom génnewul kenn police waaye du moom mooy génne nit police te du moom moomu nag moo ñu setal parce que it mooy li muy faral di wax rek opinion dafa am solo mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy véhiculer opinion surtout journaliste yi ñu war a def très attention bu ñu tuumaalee nit naam dëgg la ñu dem gestu ji seet lu setental bu mu set ñu doog a wax parce que bu ñu waxee la muy yàq bu defaru ñëwee kenn mënatu koo dabb parce que gisoon nañ fi ñetti journaux yoo xamante ne ak dal bi ñu doon dal ci kaw président Idrissa Seck. Mm-hmm. bu fii ñu toll nii mosul am. le jour le messager il est midi ah yooyu noonu ñaar yoo xamante ne ci laa ci yu ma gën a jàpp ci ñaar yooyu parce que à l'époque ñaar yooyu laa gënoon a jàpp méttital gi ñu doon teg ci kaw président Idrissa Seck kenn mosul xam ni mu toll te loolu ay taskatu xibaar ñoo ko defoon. Mm-hmm. loolu it bokk na ci li nga xamante ne tey ci la ñu doon dund ren daaw daaw ak daaw jéeg ak ren jékki-jékki ay journaliste signé dara ne wala lii ak lii walaa journaliste jël seen rajo taal seen rajo ndax ci loo xamante ne ñu ngi koy jëlee rek ci dégg na ci yaakaar naa. ci foog na parce que journaliste dafa nekk koo xamante ne li muy wax fa mu yegg waxu kenn yeggu fa. Mm-hmm. moo tax opinion boobu nga wax ak conviction boobu nga wax dama jàpp ne li ko yóbbu fa mu yegg autant bu ñu créé waatoon ay journaliste setal kilifa gi na ko yoon setalee rek jàmm dana gën a alors taqaloon nañ ko lool ba tuddee ko ennemi public numéro un euh, ci ñi fare woon ci nguur gi booba jamono euh, est-ce que mun nga ñëwaat ci problème bi amoon dëgg-dëgg diggante ab Ablaye Wade ak sa Seck nga xam ni ànd nañu ànd bu yàgg 88 daanaka Idrissa Seck booba ba tey euh, dakkul woon di am taxawaay bu am solo ci wetu président Wade fan la problème bi jógee si sa xalaat fekkee mbirum chantier Thiès yi dara amu ci atteinte à la sûreté de l'État bi itam dara amu ci comme ni nga ko waxee. waaw xëy na problème yooyu sax mën na doon loo xamante ne daf ma mag wala daf ma ump. Hmm. parce que xam nga far moom far la rek bëgg-bëgg la. Hmm. nit ki nga bëgg ba bëgg ko nit mënatul wax ci moom dara lu ñaaw ba nga gis ko. lu dul mbëggeel googu rek. Hmm. te man fa laa jëmoon nag kii nga xamante ne tey dañ ko doon xeex ak attaqué. la ma jàppoon mooy injustice lañ teg ci kawam. la ma jàppoon mooy sosalaate moom lañ teg ci kawam. complot daal loolu complot moo tegu ci kawam comme ni ko nit ñi di waxee. ñu jël lépp lu nga xamante ne mooy état gal ko ci ndoddam mais moom li ma ci jàpp te mu koy faral di waxtu wax ko barke démb rek rek rek rek rek ci ci ci ci ci ci beneen seen yeneen naataango yi nga baal ma ma tudd tur mm. tur mooy Jeune Afrique mm. mooy dañoo bëggoon a remplacer doomu jiitle gi ak doomu geño mm. Karim Wade lañ bëggoon teg Karim Wade président Idrissa Seck tollu woon na foo xamante ne président Ablaye daan na wax bu ma xalaatee mbalaa maa wax mu jëf dafa am kilifa gu mag ab nasaraan tubaab waxoon Idrissa ne ah ni ma déggee président ab Ablaye Wade di waxee ni yow di ko waxee ci yow cofeel gi mu am ci yow bu koy wax muy gën ci bëtam gën ci lameñam hmm. loolu mënta neex soxnaam parce que soxnaam bu sañoon mu wax loolu ci ci taawam bu góor hmm. xam nga jigéen moom kër gu mu dem sëy am fab doom bu góor bu sañoon koo koy doon mooy gën ñëpp mooy gën ñëpp mais bu fekkee ne nag borom kër gi day bàkkoo doomu jiitle bi ñëw ci kër gi ah loolu it mën na indi loo xamante ne tey jiix jaax la beneen ba ca tegu li ma mënoon a jàpp mu nekk mbiru personnel. Hmm. mooy tey mooy li nga xamante ne aussi wàlliyaan dañuy naan wàlliyaan ak xaaraankat fi gën a siis. <laughs> mooy ñi nga xamante ne ba nguur gi bañ jotee ci nguur gi jàpp ci nguur gi te ba muy métti ñu dawoon ba président Abdoulaye Wade. ba muy wétti ñu woccee leen ne leen dara du ngeen ko am dem créer seen i parti bopp wala ñu dem waliyaan dem feneen ba ñu jotee ca nguur gu te ñu bëgg a gën a jege si waat hmm. dañuy mel ni li ngay wax cogg wala dunguru <laughs> te gis ngeen xeex ba ba muy méttee ka métti yi cogg yeeg dunguru yi lañ ca gën a wax ci lu yàq ak ci luy bon moo gën a bëri hmm. te ba muy metti nag président Idrissa Seck moo fi nekkoon mais ñun daal li ñu jàpp mooy hmm. le fils d'emprunt nag dañ ko bëggoon a remplacer avec le fils biologique loolu daal la la kër gi fa gi wax moom la ñu gën a jàpp te loolu lañ gën très bien alors ginnaaw nag jafe-jafe yooyu mu dund ñu bari itam ci askan wi nag euh, jàppoon ne daal dañ koy bundu xataal dañ koo complot dañ koy sot soto ak yeneen ak yeneen élection 2007 yi ñu jox ko bopp lool euh, naka ngeen dundee woon moo boobu nga xam ne Idrissa Seck defoon na ko ginnaaw bi mu génnee prison 2007 ci élection présidentielle waaw waaw élection présidentielle 2007 yi parce que ñëpp waxoon nañ sax en 2006 noo def moom mooy jël réew mi moom lañ gëmoon te liggéeyoon nañ ko parce que boo gisoon président Idrissa ba mu jógee Dakar di dugg cees balaa moo yegg si place de France gis nga nam meloon président Idrissa Seck ba mu dugg see ñëw université dañu fa fekk duggee ko canal 4 jaar Claudel diggante Claudel ak pavillon A ñaata waxtu la fa président Idrissa Seck def ba mu jógee pavillon jël avenue euh, Cheikh Anta Diop bi wuutali wookaam bu ñu karoon ko karoon ñu biir Mermoz jaasi yeeg paaka yeeg lépp naaw ak gourdin yi ku ne xamoon na ne boobu réew maa ngi ciw loxoom terewul nguur jaralu ko woon loo xamante ne day indi instabilité ci réew mi parce que lépp loo mës a wax rek mën a dal rek teg ak tey nguur yàllaa ko moom moo koy joxe que jëmmam warut tax deret tuuru jëmmam warut tax poto takk wala mu fay jëmmam warut a tax xeer jóg ba ko président Ablaye Wade wooloo ci waxtaan dafa dem waxtaan ba ñu bari ci lañ ko mere ñun ñi toog biir këram ñun ñëpp ñi toog ci biir mbedd bi parce que à l'époque sax sama classe bii amuñu woon marta ba wala amuñu woon mata digu leen mën a may sax ñu jege buntu kër Idrissa Seck. Hmm. parce que kilifa yi ko daroon. ñun daal nañ ko seen rek mu yëkkati loxo nañu absolument <laughs> rek doyoon nañu. seen xol tout à fait absolument. <laughs> rek doyoon nañu ñun loolu lañ daan wut ci moom. Mm-hmm. mais ñun ñu toogoon ci mbedd bi di xaar jékki-jékki dégg na mu nga biir pale mm. ci laa gis ñii di yuuxu ñii di jooy ñii di xalangu ci ay mag. ndax ànduñu ci woon. ndax ànduñu ci woon. ak li ko waat def yëpp. ak li ko waat def yëpp. te wóoroon na ko ne bu ja bu demoon ci ci mbedd mi rek mënoon na am dara. wóoroon na ko ne bu woote woon xërti xërti. saaga xuloo ak xeex rek lu ne mën a naan. am na ñu jàpp ne nag loolu yëpp yàkkamtee ko waral. déedéet du yàkkamte parce que nit ñi dañuy wuutale ne li ci nguur nit ñi dañuy wuutale lu bëree bëree bëree bëree nga xamante ne moo dem ci nguur jàmm. Hmm. am nguur am ko ci dal ak jàmm moo gën. waaye wooteel jàmm te toog fi nga toog waaye looy dem yàqal na ko lu bari de. Mm. xam nga ne maak diw juboo nañ te yaak diw kenn mosu leen gis ngeen jégalantoo loolu jàmm amu fa parce que ñaar yi dafa am ci kii mm. lañu naan bët yi daje nañ waaye xol yi xol yi xol yi gisewuñu mm. parce que jàmm ci xol la te bañ ko koy wax ba muy dem it ay kilifa yu mag nee nañ ko nee nañ ah lii de bu ko defee jaram bi dana am jam-jam yu bëri jam-jam yu bëri dana dal sa kaw gëmoon na ko xamoon na ko mais jàmm ci Sénégal jàmm ci suñu réew to gis nga ka ma gisoon 2007 moom laa gis 2012 ci kàddu moom laa gis aussi 2019 ci kaddu. est-ce que président Wade naxu ko 2007. de président Wade bu nax amee naxu ko boppam la nax. parce que ko déclaration ñëpp di dégg. waaw parce que loolu ñoom ñaar loolu la ñu waxante Idrissa man li ma gis ci moom te tax ma topp ko du leneen. Hmm. lépp lu la wax mu nga ca. Hmm. lépp lu mu la wax mu ngi koy jéem. wax def ko yàlla rek a ko mën waaye wax sabab lu ko yàlla nit nit war na koo mën. Mm-hmm. ba ñu waxtaanee ñoom ñaar dañuy def déclaration moom def na déclaration wax la mu gëm. Mm-hmm. bu mu la teree keneen jëf la xamante ne du dëgg. 2012 ba nit ñi demee hôtel ngoor Ndiarama nit ñi di signé ne bu kenn dem euh, campagne électorale ñépp dañ ko doon xool ne mu ngi signé waaye dana dem campagne. waaw ah, ndax dañoo jàppoon ne lu mu wax du ko def. pourtant moo ca mujj moom rek a des Dakar di di di xeex lu dul cees demul feneen te Thiès sax ba muy waaj a wote ca euh, bañ na suba gannaaw suba élection yi ci la doog a dem dëkkam kon ay boo wax ak nit ba pare bañ koo jëfee naxoo ka nga waxtaanal sa bopp nga nax parce que boo weeteeg sa borom wala nga weeteeg sa bopp rek war ngaa xam c'est vrai nag politique politique la politique moom nekk na loo xamante ne dañ ne làmbi golo la rek. Mm-hmm. ay calcul la itam. ay calcul la itam waaw. est-ce que idi calculé wul am am fu nu ko njóoyee audience min bi ñu doon dégg tam loola yëpp euh, euh, sëñ bi Sagna bu ñu ko euh, tegee est-ce que tam yàqul lu bare bëri ci crédibilité Idrissa Seck. da dafa fekk bés bu jotul rek yàlla suñu borom bu namee nguur ci ne da ko koy roof ba koy roof du ko sax yëg. ay audience min wi am naag audience mi di am naag fu ñu mujj protocole ba dafa réer. pourtant ay journaliste ñoo génne woon hmm. mais protocole ba fu ñu mujj protocole ba dafa réer diw ka ko yoroon dafa màndi woon notaire ba sàcc ko loolu da lañ mujj <laughs> du ay audience moo koy def gis nga da ngay toll foo xamante ne ci wu dëkk dal xoolal li nga xamante ne tey moo am France fan yi passé hmm. ku ne xam na parti nationaliste nga xamante ne Marie Le Pen moo ko jiite hmm. le Front National ñoom ñoo njëkk a jóg def discours woote jàmm woote dal wax président de la république na recevoir l' ensemble parti politique yi nga xamante dañu am groupe parlementaire ñu waxtaane naka la ñuy régler problème yi am ak xeex yi am ci biti xuloo yi am ci biti bañ te jógee Jean-Luc Mélenchon defaat beneen déclaration ñëwaat dafa ba mu xëyee dafa def déclaration mais ba mu demee ëllëg sa gis ne situation bii la l' la stabilité de l' état la préservation des institutions de la république amul couleuru parti politique dafa defaat déclaration ne ñi yàq nañu bàyyi yàq bi ñiy yuuxu nañu bàyyi yuuxu yi te ñu xam ne réew mi dëkk bi ñun ñoo ko moom te dañ ko war a préserver woo président de la république ne il faut rester ferme taxawal pour li nga xamante ne stabilité ak paix day dellu si waat jàmm ci gannaaw force de l'ordre force de défense et de sécurité yi woote unité ci gannaaw président de la république responsabilité boobu nag amateur politique mënu koo xam hmm. xam nga fi ñu toll ci politique dañoo war a dañoo war a def la différence entre les activistes activistes politiques yi influenceurs politiques yi ak amateurs politiques yi ñooñu bu yàlla suñu borom nattoo Sénégal bu ñu jël ko jox ko ci ay amateurs politiques influenceurs politiques musiba dana am hmm. la raison d'état ku ne gis na Khalifa Sall gi mu àndal. Hmm. ku ne gis na Ablaye lu ñu ko tegul. ci temps wu ci temps wu Abdou Diouf boo voté mbalaa treize ñu jël la yóbbu la. Hmm. ku ne gis na li ñu teg sa Seck ñun gis nañ fi Cheikh Anta Diop dégg nañ ko sax la ñu war a wax. Mamadou Dia. Mamadou Dia ba mu génnee lu mu wax ci benn déclaration bu mu defoon boo xamante ko ne mën na koo seetaan. je pardonne. je pardonne. lépp lu ma jotale woon ak Senghor je pardonne la seule chose que je peux pas pardonner leen rek laa mënuta baale hmm. mooy Sénégal fi ko fekkoon ak fi ñu ko waroon a yóbbu hmm. responsabilité boobu hmm. voilà vision bi ñu détourné woon rawoon Corée ñëw nañ ba tey Corée moo ñu raw ñoo woon beaucoup de pays ñoo leen mu ne loolu rek laa mënuta baale mais lépp lu jëm ci man baale naa ko nga jël ah, Khalifa Sall lan la wax j'ai pas de rancune la rancune et la haine sont des faiblesses xam nga jëfee ko dem fekki président Macky Sall jox ko loxo waxtaan ak moom reetaan ak moom président woote dialogue mu dem fekki ko kon moom dafa toppandoo sa Seck ba mu jotee ak Ablaye Wade en 2005 juillet 2005 mu dugal ko kaso 299 jours mu def ko ci kaso gi ak métital gune mu génn en février sa après 199 jours ou 200 jours. Hmm. ñu génnee ko ci match boo xamante ne match Sénégal. demi-finale demi-finale Sénégal Égypte pour ko kenn du yëngatu mais hmm. kooku mu ñu fekk pavillon M hmm. ba journaliste bi caaxaabale Idrissa Seck na ñun pare terminé wuñu match ba suñu yoon nekkatul ca ka gagné penalty ba Sénégal amoon ak mu a am <laughs> noonu dem noonu lañ naawee dem ñu dem fekki ko ñu demaat 2008 hmm. ñu waxaat la regroupement de la grande famille libérale président Idrissa Seck li mu gës a gëm mooy benn kilifa la ñu amoon ci libéralisme Ablaye Wade la nit mën na mere doomam bu dóor ko des fois doom mooy téyel ba kilifaam sax mais moom téyelu kilifaam 2008 mu waat ko. Mm-hmm. ba ko nit ñi ne mën nga ne candidat mën nga ne candidat moom kese ci ñoo xamante ne ëpp na plus de soixante dix jëm ay cent personnes nekk comité directeur PDS mu ne leen ñii lay wax lii ña wax bëgg luñ la jàmm. Mm-hmm. ñi lay wax ne nekkal candidat. fii nii tey troisième mandat ba. troisième mandat bi ñi la koy wax tey bés boo demee boo jotoo ci troisième mandat bi dootoo ci gis kenn anañu tasuñu. Mm-hmm. ñi lay wax ne sa doom ji moo fi gën moo fi gën a baax ñoo fi gën a jiitu bu ñu sañoon jël place am moytu leen dégluwuñ ko loolu it foofu la fekkaat aussi ak son frère koo xamante ne depuis 1988 ñu ngi ànd muy président de la république Macky Sall. Mm-hmm. kooku di jox ko cër may ko gëdd xam ne Idrissa mi am na lu mu xam am na lu mu mën te am na lu mu mën a téye ci réew mi mu woo ko ci wetam ñu toog waxtaan. Mm-hmm. ci jàmm jooju laal lay dox. waaye ñoom ñaar ci ñaasante lañ mujj ndax Idrissa Seck ba mu génnee PDS dem di taxawal réew mi nee na Macky Sall la ko xañ récépissé. déedéet du Macky Sall la ko xañ récépissé. mais président de la république moo nekkoon ministre de l'intérieur. ba tey mais ministre de l'intérieur dañ koy def loo rek muy def parce que exécutif kenn rek moo koy diriger mooy président de la république. amul yeneen yu xewoon seen diggante ay ñagas ñagas. ñagas ñagas man mënuma ko tuddee ñagas ñagas parce que xam nga dafa am leen lu xew ñaari taaw ci kër. Hmm. bu benn kenn ki toog fii mooy doon borom kër bu ñibbisee bëgg a jëlaat place ba dana métti. Mm-hmm. mais duut loo xamante ne ci en la maanaam dafa nekkoon une compétition seen yaa fi nekkoon premier ministre dem nga maa fi premier ministre maay dogal maay deuxième ci parti bi. bañ ko wax loo ne ko doo fi am récépissé ba mu doonee président de la république jox na ko récépissé. Mm-hmm. yàllaa ngoog. Mm-hmm. nekkoon na ministre de premier ministre la nekkoon. ñu bañ koo jox récépissé parce que dañ ko waxoon ne doo ko jox récépissé mu nee nañ ma du la jox récépissé nga ba doone président de la république nga xamante ne moom la njëkk a jox récépissé biñ njëkk a en 2012 mooy récépissé parti réew mi. Mm-hmm. ci nguuru président la lañ ko amee di ko ko sant di ko gërëme. Mm-hmm. te loolu aussi moom lañ wax la lucidité ci du chef. mënoon nga di bañ dara mais dem ba mu yàgg nga toog sa xel ak sa xalaat yedd la te man lucidité boobu gis naa ko ci président de la république Macky Sall ba ci troisième candidature bi ñu ko bëggoon a def lool. Hmm. ñëpp danañ la diggal ñëpp danañ la jay ñëpp danañ la yaa man mais boo toogee ak sangi gannaay xool seet seetantal jël say responsabilité hmm. déglu ñëpp. Hmm. jël say responsabilité dal googu àndal moo taxoon mu joxal ñu ñun suñu récépissé. seen récépissé gannaaw ba ngeen ci dawee ay at alors ngeen taxawal parti réew mi ci yan condition la parti bi juddoo ak euh, naka la yëf yi daal taxawee dëgg ba doon parti réew mi. waaw parti réew mi moom dafa nekkoon loo xamante ne waar la rek ci tool wi parce que suñu objectif wala objectif président de la république mooy je suis actionnaire majoritaire du PDS moo nekkoon téye PDS dali jëliwaat ko ak lu mu ko mën a jëlee rek par des étapes première étape bi tey balaa ñuy dem ci parti réew mi dañoo njëkkee fidèle hmm. jël Yankhoba Diattara sama frère maa ngi koy nuru di ko sargal nga xamante ne lépp lu ma am ci politique ak fépp ma jaar ci politique moom mu ngi ci ba ci sama njàng nga xamante ne leen rek la ma daan wax footalu ci sa njàng mi mosuma laaj wax waxu politique. Diankhoba hmm. Diattara footalu ci université footalu nan bu at ba ma ko waxee ne ah at bii kat damay reprendre jour boobu daf ma laaj rek ma ne ko damay reprendre tontuwaatu ma noonu la dugg otom deb ba ma kon dama koy gërëm Diankhoba Diattara. Hmm. kon ci la ñu créé Fidèle bañ créé Fidèle te gis nga ba ñuy créé Fidèle nañu def kenn yëgut kenn tinut te ñun def nañ la ba jot ci hôtel bi. nit ñi dañoo jékki-jékki gis ñëpp ci biir saal bi ñu créé fidèle bañ demee fidèle coow li dem kaw ñu jël ba Diatara dugal ci kaso gi mook sa Seck kii nekk Thiès kii nekk dakaar ñuy dawal dawal bu mu yàgg ñu créé le le M6 le mouvement de soutien de sa Seck ak ñoom docteur Ndoye période boobu lañu ñu commencé nag sama classe gi am activisme réel politique am base biir section universitaire bu Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. am base sama section Bambey ñaari ñaari section au niveau de de, de ak benn section Bambey loolu moom mooy ni nga xamante ne mooy carte yi ñuy njëkk a jënd. Mm-hmm. di ko jaay ci parti politique u Idrissa te di sargal. ak ñi nga xamante ne ku meloon ni Abdou Diouf ku meloon ni Badji nga xamante ne ñoom ñoo amoon seen parti politique. Mm-hmm. ah euh, doon ñu abal seen récépissé ñooñu ñooñu doon abal seen récépissé récépissé yooyu ñetti récépissé yooyu lañ demee woon au niveau élection nga xamante ne tey mooy élection 2007. 2007. waaw donc euh, parti bi fa la jógee Idrissa diraam di ñëw diraam di ñëw diraam di ñëw bëggoon a jël li nga xamante ne en tant que actionnaire majoritaire nit nag du gedd ndonoy baayam lu mu mën a joteeg baayam ak ko baayam mën a génnee kër gi du gedd ndonoom. Hmm. bañ demee nag ba desul lu dul fii ñu toll nii nag mooy ut parti politique déposé nañ suñu récépissé récépissé bi tey yàlla suñu borom def ñu jot ci en deux mille en deux mille douze mais suñu objectif yëpp mooy la réunification de la grande famille libérale et créer le plus grand parti libéral au monde possible buñ ko defee jël PDS tant mieux buñ ko mënul PDS taxaw ñu ñu taxaw mais que ñu nekk identité remarquable bi nga xamante ne ñun ñooy la locomotive de la famille libérale africaine la locomotive de la famille libérale Euh, sénégalaise ku tànn turu réew mi. waaw tulu réew mi moom yaakaar naa Idrissa sec la mais comme dafa tooxoon xam nga li ko taxoon a jóg mooy réew mi. Hmm. réew mi en tant que pays parce que soxlay askan wi. Hmm. waaw soxlay askan wi taxawu ci soxlay askan wi ñu incarner le Sénégal dans toute sa diversité culturelle ethnique politique institutionnelle religieuse. incarner le Sénégal dans tout sa miniature mais incarner le Sénégal aussi ci taxawul lépp loo xamante ne lu war a jiital daal mooy intéret suñu réew. foog hmm. naa ci ay sociologue bi mu doon ànd ak ñoom sëñ Mor ñoom ñoo waxtaan moom mu wax tori bi mu bëgg ak lan mooy jubluwaayu. Hmm. mi waaw. tur wi juru woon coow tuuti taxul woon seen récépissé bi xaw a tuuti réew mi. waaw mën na ko nekk parce que aussi yoon dafa ne am na symbole yi nga xamante ne kenn waru ko utiliser. pour parti politique wala pour association ñëpp ko bokk. Mm-hmm. mais dañ ne aujourd'hui les couleurs vert jaune rouge symbole nation bi ak soo bi ak garab bi ak le lion loolu nit waru ko mën a jël defee ko réew parce que loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. mais bii ñun waxuñu français waxuñu le pays am na journaliste yoo xamante journaux yoo xam mën na tudd le pays. Mm-hmm. ñun ñu ñoo décidé ko suñu association réew mi la tudd mais la koy mooy objectif bi xëy nañu ñu bëri woogoon nañ ne waxoon nañ ko mais juridiquement gisuñu fenn foo xamante ne mën nañ fa jaar bu am dëgg. Mm. pour ne lii ñun ñoo ko ñun ñoo ko moom. parce que ku wax mm. ku wax couleur yi tey. Mm-hmm. buñ ne woon couleur yi kenn du ko jël xanaa ñu ne ñetti couleur yi kenn du ko dajale. Mm. parce que vert bi parti socialiste jël na ko. Mm-hmm. jaune bi PDS jël na ko. rouge baa ngi Pastef. rouge baa nga Pastef mais ñun jëluñu couleur <laughs> yooyu. Hmm. yàlla suñu borom def na ñun dañu waxoon ne c'est la révolution orange. ñun hmm. orange bi lañ jëloon vitamine C bi. Hmm. moom lañ jëloon teg ko suñu kanam. <laughs> ngeen dem élection présidentielle 2012 euh, jàllu leen deuxième tour comme ni ngeen ko foogee woon doonte gëmoon ngeen ne ñeenteelu président bi moom Idrissa Seck lay doon ngeen mujjee jàppale président Macky Sall dugg ci benn bokk yaakaar waaye yàggu leen fa lool ndax mën nga ñëwaat ci épisode boobu. Macky Sall ak Idrissa Seck ci benn bokk yaakaar. 2012 moom nañ bu fekkoon ne élection bi lañ ca waxoon defoon nañ ko kenn mënu koo génne ci deuxième tour bi maanaam bu kenn battre campagne wala ñu ne woon ñëpp nañ demandoo campagne mu demandoo parce que boobu ku ne xamoon na ne coalition bi ñu yoroon 2012 niñ ko nase woon borom xam-xam ñu ñu ko nasee woon programme bi mu yoroon mais déploiement bi mu bëggoon a def bu ko defoon moom waxatuñ ko. et di quatrième président. mais yàlla suñu borom def na ko slogan la. <laughs> gagné wuñu biñ demee aussi deux mille euh, ba deux mille vingt et un et deux mille dix neuf ku ne dafa waxoon ne Idrissa pare na Idrissa dee na nga doon dégg de. Hmm. mais li ma mës gëm te mësoon koo wax en deux mille douze mooy kenn du mës a jënd laytaayam wala perkaalam ci politique. Hmm. deux mille dix neuf nga gis mooy la plus grande coalition de l'histoire politique du Sénégal Idrissa lañ ko la ko topp. même ses plus farouches opposants yi nekkoon ci biir opposition est-ce que du bala ñu yegg 2019 2012 ba du dugg du woon dugg ñàkkuk pexe rek est-ce que vraiment c'était dans vos calculs ngeen ànd ak président Macky Sall parce que booba même bu ngeen amul woon problème it diggante bi taxu ko woon euh, euh, nooy noona euh, man de li ma ci fekkee mooy congrès bi ñuy defoon hôtel Ngor Ndiarama te mu nekkoon au mois d'août 2011 boobu sax kenn waxagul waxu grande coalition. Mm. boobu diggante Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla dem xare ko àjjana. amiin ak Moustapha Niass ñu ngi koy xëccoo benn sigil Sénégal. Mhm. kuy doon candidat mhm. kuy doon candidat ba. ñun suñu congrès ñu ngi ko def mois d'août deux quatre hôtel Ngor Ndiarama te le président Idrissa waxee ne ñu ngi dem élection dañuy demal suñu coalition bopp bi ñu demee suñu coalition bopp nag au deuxième tour nous allons le parti la coalition Idrissa Seck va soutenir le candidat le mieux placé contre le président de la République loolu la ñu waxoon. Mm-hmm. boobu jégesee guñu sax ci ay waxtaanu euh, opposition bi te kon loolu na jëfee ba ko président Macky Sall seet say def ko ne. Mm-hmm. jaru doon nga may seet si parce que man samay kaddu laay màttali. Mm-hmm. duut ni nga ma seet see moo tax ma lay jàppale duut parce que seet si woo ma dina ru ma la jàppale. mais man ak képp ku ma déggal deuxième tour bi yow lañu doon jàppale parce que loolu laa nasoon loolu laa waxtaanoon ak parti yi nga xamante ne ñoo ma jàppale woon bésu congrès ba. amu leen woon mbetteel ci 2012 booba. ni nga ko waxee baatareel woon campagne président Macky Sall lañ ne moom moo yooleeku ndànk dem campagne yi. mbetteel moom amoon nañ ko parce que képp koy wuute da ngay yaakaar am. ku tàggat saw fas ba mu taxaw te mu wóor la ne fas wii lépp li ci war ci moom pour mu gañe am na ko fas bi na bërët faqastalu daf lay bett rek. boobu noonu du ñun rek coalition boo mënti ki jàpp parce que coalition Benno ak Tanor nam toll woon coalition Benno ak ay Moustapha Niass nam toll woon ku nekk ci ñoom ñaar yaakaaroon na yaay gën troisième deuxième ñun itam yaakaaroon nañ ñun ñooy gën deuxième jàkkaarloog président de. Hmm. mais yàlla suñu borom def la mu def mbeteel la ñu bëri tey li ñuy wax mooy dañoo yaakaaroon ne tey président Macky Sall bi muy def campagne dañ ko doon reetaan. Hmm. mais liy wund loolu yëpp mooy liggéey am ñàkk jëriñ. ñàq jëriñu liggéey am président de la république Macky Sall gëm na boppam wàcc xam ne li conseil constitutionnel wax kenn mënu cee dellu gannaaw mu takk ay bagaasam dem wuuti nit ñi moom boo demee fekki leen rek ñu jox leen la ñu yore nit ñi ña mu fekki woon ñoo ko fal duut lu jinne def duut lu calcul mathématique def maanaam dafa wàcc te balaa boobay da ko njëkk a liggéey maanaam li am moom ku nekk ci ñun waroon na xam ne président de la république Macky Sall da koo liggéeyal boppam. Mm-hmm. man ah, mi dëkk de man mi dëkk Koungheul de xam naa ne président de la république Diop romb na à l'époque en 2008 sama buntu kër. Mm-hmm. di dem ci beneen responsable bu dëkk sama wetu kër. ñaari oto topp ko ma toog di reetaan di daan xool ko ndeysaan ay waay kii dana sànku ci àll bi. Mm-hmm. booba man mii maa ko doole sama biir dëkk. ay am ba ñuy jogee foofu di ñëw congrès kaaru quarante cinq places ak problème lañu amoon pour remplir ko hmm. kon mu dellusiwaat ba mu defee tournée ba tournée boobu jeex defaat na deuxième tournée ñëwaat deuxième tournée ba mu ñëwoon fu mu amoon fukki nit amaat na fa cent personnes. Hmm. campagne électorale bi nag mu def campagne électorale bu normal parce que jour ba jour ba conseil constitutionnel déclaré le lendemain lañ takk bagage si maa ngi fàttaliku bés boobu sama benn naataango maa ngi koy nuyu. Mm. maa ko jële ci oto foo jëm mu ne ma damay dem suñu permanence dañuy départ man maa ko wàcce ci seen buntu la ma gis ñu ànd ak ay nitam. Mm-hmm. Euh, di sant yàlla aussi di ñaanal parce que keroog am na ku ma fa nuyu ko naan fu ngeen jëm ku mel ni Alioune Badara Cissé. Mm-hmm. maa ngi dégg mu yuuxu moo Moustapha Cissé loolu nañ leen taal leen oto yi ñu dem taal leen oto yi ñu dem. Mm-hmm. nga xamante ne kilifa ay kilifa ñoo koy dar ay borom xam-xam ñoo koy dar. te ñu koy wax dëgg ñoo koy dar. loolu it mën naa ko caa seete. Mm. waaw. li tax sànq ma ne la ndax du woon euh, jàppalek ñàkk pexe parce que waxoon nañu balaa élection yi ne ku jàll deuxième tour ci opposition bi yow la ñuy jàppale euh, benn jubluwaay lañ amoon mooy jëlee fi président Wade li tax ma laaj la ko mooy yàgguleen dara ci Benno Bokk Yaakaar 2013 ngeen lem seeni bagage ne yorin wi baaxul génn. déedéet 2013 Idrissa ne na koo xamante ne nit du ko wax loolu mu gëmut nit du ko def loolu mu lu mu mënut. Hmm. dañ ko boobu ba tey moom la waxaat fii. Hmm. barke dem biñ ko laajee mu ne bilan matériel président de la république kenn mënu ko naatable du ci tali du ci pont du ci oto du ci infrastructure routière du ci électricité du ci ndox maanaam ci wàllu forage kenn mënu ko cee nat ci président Macky Sall kenn mënu ko. mais le mais bilan moral peut être amélioré. loolu la waxoon keroog li mu waxoon mooy. le bilan n'est pas encore fameux li nit ñi bëggoon mooy ñu wax loo ko ne président bi moo fi gën moo fi gën a rafet moo fi gën a jekk te booy ànd ak président nag dee ko wax dëgg kilifa boo bëggee bañee ku ko xas dee ko wax li mën a nekk ak li am. da doon bañ li daloon président Abdou Diouf ba muy wàcc ñu ne ko kilo ceeb fanweer ak juróom la am mu loolu mënut a nekk Sénégal. Hmm. parce que jàpp na ni kilo ceeb yëgul sax ñaar fukk maanaam information bi jotu ko. Hmm. bañ ko say naataango poser problème def leen ne peut mieux le bilan n'est pas encore fameux. lu taxoon dëgg-dëgg ngeen génn. li taxoon dëgg-dëgg ñu génn mooy ña ko jege woon it ñoo ko doon naan mut mbaa mot. Hmm, ndax moom noppiwul woon di wax xalaatam. parce que noppiwul di wax xalaatam te waxtaan bu xalaat bi mu doon wax xalaat boobu moo doon jëmee Sénégal ci kanam. mais lu tax daaw ko wax ak Macky Sall xanaa jubóo ñu woon boobu jubóo déedéet kay ca lañ gën a jiboo parce que boobu diggante bi ratax na ratax goo xamante ne lam bëggoon a dénk kilifa bu ko ko dénkoon tey sax mu ëppoon li lépp. Hmm. parce que sant déggoo xam nga mooy li ma wax nit rek xaaraan kat moo gën a siis. dañ ko complot waa 2013. mën na ñàkk doon complot mais xëy na gisin wa. Hmm. xëy na nit xay na yaakaar nañ ne kii kat sees bi ma toog moom la ñuy xool wala nit nee na ko kii sa kaw la jëm. dañoo yàq daal xelu Macky Sall ci Idrissa man ci laa jàpp mooy sama xel damaa jàpp ne dañoo yàqoon xelam xaw ma ndax moo am walam déet mais loolu laa jot mais boo gis loolu le président waxoon def ne le bilan n'est pas encore fameux. Hmm. on doit aller nañu baral jéeg wolof sax la ko wax. nañu baral jéego jeex na nañu baral permanence fa Dakar dem dikk ne woon mu ngoog nañu baral jéego yi ngir saafara jafe-jafewu askan wi hmm. ñu ne ko mbuut mbaa mot ñu teg ci moins de cinq mois ou six mois ñu changé gouvernement bi premier ministre ba ñëw ne on accélère la cadence accélérer la cadence ci wolof mooy lan. baral jéego. nañu baral jéego yi. kon ku am dëgg. président Idrissa Seck maanaam c'est l'homme incompris de son temps je le prends comme le philosophe Galilée lorsqu'il a dit que la terre tourne hmm. ñu bëgg ko rey mais finalement ne pourtant la terre tourne et aujourd'hui tout le monde accepte que la terre tourne ba ñu jógee ci loolu ñu demaat avancé ah deuxième slogan bi euh, premier ministre Boun Abdallah Dionne tegoon moo nekkoon la fast track. Hmm. nañu baral jéego yi on accélère la cadence ñoom ñu ñëw ak seen slip au travail. Mm. c' est toujours le bilan n' est pas fameux cela veut dire que les gens. ba tey des na daal am na lu des. il a dit au gens au travail. troisième gouvernement ñëw fast loolu moo tax aussi lu ko nit bañ bañ bañ bañ Idrissa lu waaye bañ bañ bañ bañ Idrissa mooy loolu li may faral di naan gis nga. bukki loo ko bañ bañ bañ bañ bu tuumaal ko ci yoon bu ko jiiñ na moo lekk saw ngooñ boo bëggee am dëgg <laughs> waaw waaw bukki moom boo bëggee am ci moom dëgg rek bu ko tuumaal ne moo lekk sa ngooñ mm-hmm. Idrissa nit mën na ko tuumaal lu ne sauf amul xam-xam amul sages wala amul maturité mm-hmm. la sagesse la maturité l'expérience l'homme d'état mu ngi ci moom mm-hmm. te nit mënu ko manipuler man gis naa nit koo xamante ne loo koy wax ci nit na doon dëgg Hmm. parce que ak ku loo weet ak moom lu mu lay wax mooy ne dites rien que vous ne puissiez prouver et lorsque vous êtes de la même confession religieuse ko moom daf leen di wax fàtta bayyenu hmm. boo may wax dara seet ko seetantal ko hmm. leerlu ko kooku neex na àndal neex na àndal bu ma ñëwoon tey ci moom di ko naan faatu nii faatu ne faatu ne daf lay xeeb suba boo ko soxlaa rendez-vous doo gaaw a jot ci moom mais wax ko liy baax ci faatu liy xam-xam ci faatu bu ëllëgee buy wut journaliste bi gën ci journal mu daw wuti faatu te doo ko yëg. Hmm. noonu lay doxe noonu lay doxe d'accord. man de yenn saa ma mere ko lool nag. Hmm. waaye yenn saa it ma kontaan ci moom lool boo xam ne cam sama ndaama li daal wax dëgg neex na àndal. kañ nga ko mere. waaw li ma ko mere woon mooy. kañ laa ko mere parce que yenn saa nga am kilifa nit ñi attaqué ko. Hmm. nga ne ko ripostel mu ne la du may riposte bay leen ñu wax. comme digganteem ak Sonko. waaw dem nañ fi septembre deux mille dix neuf ou mille vingt deux mille vingt inondation bi muy bëri. Hmm. gaa yi def conférence de presse attaqué ko ne nekkul seen chef de l' opposition nekku fi dara xastewul dara ñun ñu préparé préparation ba xamante ne ñun jeune réew mi ku ne xam na ne jeune réew mi kuñ mosoon a roof galgal am sa sa son sonn. <laughs> mu ne ñu mais François lu tax ngeen bëgg koo tere mu wax lu tax ngeen bëgg koo tere mu mu mu ne ma pour être grand il faut se frotter au grand. Mm-hmm. il fait son job de leader politique laissez-le faire son travail de leader politique. pourquoi cela vous gêne pourquoi vous devez être jaloux qu'il me critique ou qu'il m'attaque. noonu la leen ko waxee. kele man de mën na ko wax téléphone maa ngi ci kii. parce que dama kon dañoo bëgg a def conférence de presse ñun jeunes yi pour tontu. Hmm. mu ne ma lu ngeen di tontu ba lii lu ngeen nar a wax ma lii mu ne pourquoi vous devez être jaloux de sa notoriété. pourquoi vous devez être aigri ou jaloux le fait que mu may attaqué parce que si on veut être grand on s'attaque au grand. mu nekk lu ma jaaxal. Hmm. maanaam lu réew mi jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo demoon nañ deux mille vingt et bi muy dugg ci gouvernement bi man dama ne woon kii dugg bi mooy indi dal ci waaye politiquement mën nañoo ñàkk a parce que nit ñi duñu comprendre. loola itam da nga cee avant muy dugg. Hmm. man jàppoon naa bés ñu ma ne dugg bu dugg nañ bés bi ñu duggee. Hmm. ni ma gisee Sénégal ni mu doon riiree ñaari fan ñetti fan. Hmm. tiit naa mer gi yëpp dafa nekk mer goo xamante ne meru bokk la parce que dinaan kii est-ce que li nit ñi di wax moom yàqu na yàqu na yàqu na pare na pare na ma ne ko kii pare na te sama àdduna yëpp mooy mu nekk président de la république. mais tey gis nañ. lam ñu waxoon man de lii lam ñu waxoon ba ñu toogee dañuy dugg ci gouvernement bi ngir lutter contre la pandémie redresser l'activité économique et waajali leneen liy ñëw. ñu ngi ciy ñëw ndax euh, loola euh, li ko jiitu mooy dem na élection présidentielle 2019 élection boo xam ne jafewoon woon na lool juróomi candidat dong ñoo demoon ñu bari ñu rakkale leen pour parenage donc dem ngi yombul woon mu dem euh, teg ci jël deuxième. ñëw na këpp yelwaan nga ba mu duggee ci gouvernement bi noonu la ko nit ñi gisee réalité euh, réellement naka ngeen ko dundee lan moo nekkoon réalité bi ci biir parti réew mi. non réalité bi ci biir parti xam nga des fois aussi nit ñi dañuy def erreur ci parti politique yi. Hmm. parce que statut ak réglement parti réew mi bi ma xam. parce que nekkoon nekk secrétaire général adjoint quand même ci parti bi. Mm -hmm. di nuyu suñu njiite Matar Sey ñun parti réew mi statut ak règlement yi ñoom ñoo jox président parti bi muy jël fait et cause au non et pour le compte du parti et de rendre compte après kooku nag boo ko ko xasee jox mënoo muy lu muy dox tàggu leen ba pare ne maa ngi dem day dem kay doog a ñëw yaa a ce qu'on appelle les attributions permanentes attribution permanente la. Hmm, yéen a ko may lool daal. parti bi congrès bi moo ko ko jox statut parti yi ñoo ko ko jox certes heure buy def dara it am na ñu muy waxtaan ak ñoom chacun en fonction ci fi nga war a toll ci information ak chacun fi nga war a toll toll ci information ci responsabilité. kon yéen baa du faire valoir rek ngeen fay jariñ ndax yéen bu dee moom day dem nas noot ci ba pare ñëw doog leen a yëgal. déedéet du faire valoir maanaam tey sa directeur général yow ci sa bopp am na loo xamante ne attribution personnelle am la. mais parti association la. non même mais euh, euh, aussi entreprise association la organisation la le directeur général attribution bi muy jotee ci conseil d' bi da koy jëmale di kon rendre compte du faire voilà dama la ne. Mm. à chaque fois que mu war a jël décision ku nekk en fonction ci say attribution boo nekkee secrétaire national la. Hmm. am na ñoo xamante ni loo xamante ne walu finance bu koy def dana waxtaan ak secrétaire national chargé des finances ki yore vie politique lépp lu muy def ci vie politique dana waxtaan ak moom. ci wàllu administration bi lépp lu muy def dana waxtaan ak secrétaire généraux yi. Hmm. am na ñu muy woo téléphone wala mu woo la sa kër ne la lii laa na ma def lii la ñu xalaat a def lan moo ci sa xalaat dajale ñëpp après mu jël décision. gis nga ñu bari dañuy naan du déglu du wax. Hmm. mais ñàkk a jege nit ki la. Hmm. samedi passé heure bi ñun ñëpp ñu ngi ci yoon wutali Thiès. parce que 16 heures lañ defaree réunion ba 20 heures mais ki ma gis keneen ku bees laa gën a gisaan Idrissa beneen bu bees. Hmm. waaw. lu bees ci moom. li bees ci moom encore dal bi confiance bi maturité bi ak responsabilité bi. taaj taaj nañu ñu leen du yéen a ngi nii ba may dem dama leen lut lutte contre la pandémie tax ñuy dem. stabilité réew mi moo tax ñuy dem la paix mooy tax ñuy dem est-ce que jotuñu pandémie bi est-ce que jeexul mu ne ma déedéet. Ah, bi mais moom lan la ci def conseil économique social la yoroon conseil économique booba sax nit ñi jàpp nañ ne amul benn njariñ daanaka ci dundinu askan wi. damaa jàpp ne réew moo dem ci àdduna de am na conseil économique social. est-ce que loolu du woon lay rek pour dugg. déedéet dama ne Idrissa amul wala manqué lay pour dem fa muy dem parce que li muy def da koy def en toute responsabilité. Hmm. parce ñu bëri bëggoon nañoo fekki Macky Sall mais xam nga li ñuy wax. Hmm. vaar bi. Hmm. ñu bëri vaar bi lañ lay wax. mais pourtant ba muy dugg lu ko jiitu tuuti daan nañ ruumandaat Idrissa Seck ak Macky Sall ñu ngi waxtaan ay responsable yu mag taxaw naan waxtaanu ñu gisee wu ñu déggante wu ñu sekku ñu dara am na ci ñoo xam ne sax ñu gënoon a défendre loolu ba dugg ga amee ca lañ leen gëj ja dégg bëggumaa tudd tur ndax am naa ci nit. waaw loo loolu dëgg la dama la ne dañuy bu ñuy def dara ku ne ak fa ngay toll ci information. Hmm. ku ne ak fa ngay tollu ci information. parce que booy waxtaanee mais est loolu wekk ñi nga àndal la ñiy taxaw di la defaan naan waxtaanoo si ko ah, ah, fekk booba yaa ngay ah, nas di nocci. di wayal kay lu baax bu siiwee musiba am. Hmm. président de la république bu doon wax ñi muy waxtaanal par jour dëkk bi takk wala nit dana jël gourdin fekk sa waajur yi jël ko yet. Hmm. ku ne gis na ni Sénégal àdduna ñun africain ak sénégalais surtout noonu la ñuy doxee kilifa yi bu ñuy waxtaan dañuy xaar bu ñuy naan suuf sedd na. Hmm. audience minuit ak une heure yi. man fi ma yaroo ñoonu laa gisoon ñuy def. Hmm. wala nga gis bu timis jot ñu naan timis xale yëpp nañ dugg xale yi dugg nañ jigéen ñi dugg na xam kenn du taxawaale ci mbedd mi. Hmm. nga gis kii génnee ci buntu këram gii kii génnee ca walla kee génnee ca wàll daja nañ ca àll ba waxtaan gas ko fa suul ko ku ne ñibbi sa kër. <laughs> loolaay <laughs> loolaay yëfu mag parce que ñaar yii yàlla da cee def barke mooy li ngeen di war a waxtaane nas ko ca timis mm. ak la ngeen war a waxtaane nasee ko ca fajar mm. yàlla def na ci barke mbaa du moo taxoon Idrissa Seck dem fajar kër Ousmane Sonko ndax jàmm am jar na ko <laughs> même buñ ko doon yéen yettit jàmm Sénégal ndax stabilité Sénégal jar na ko parce que bi problème yi amee yow muccoo ci mucc ci déedéet ah mu ngi noonu bu doon seet tey di xalaat ne su ma fa demee tey nit ñi danañ ma attaqué waat. Hmm. wala nit ñi dañ ma xasaat bu ci doon xool boppam du fa dem mais jàmmi réew mi def ne boo yaakaaree jiite réew bul xalaat wala nangu mu dooni dóom. kon da doo am loo jiite. ko doo am loo jiite. kaay leen ñu xeex kaay leen ñu xuloo xalangu dajul suuf affaire yi du doole affaire yi xel la xalaat ak yenn jàmm. Hmm. parce que leneen jàpp naa ko ci moom nee na moi j'aspire à être un bon musulman mm-hmm. te boo nekkee li ngay doon boo ko xëccoo war nga xam ne lii mën naa ko wut amuma ko amaguma ko ndax war naa ko am la am na loo xamante ne dangay ngay sabab lu yàllaay def mm-hmm. waaw da sabab lu am na loo xamante ne nit du ko wut da koy doon mm-hmm. xam nga du lu nit ñi joxe yàllaa koy joxe mu jaar ci yow doon nga dem ba ñëw ci buntu wu doon gàllankoor am ka nga waroon a doon sax nga njëkk koo jiitu dem. Mhm. moom tolluwu ko foofu parce que moom nekk na koo xamante ne tey yàlla suñu li nga xamante ne tey moo tax ñu war a jox Idrissa réew mi fii ñu toll ni ci gannaaw président Macky Sall. Mhm. amul xaar ma yàlla ak kenn ku mën a reer ak añ ak Macky Sall. Mhm. reer ak Sonko wala nga njogonaloo Khalifa Sall. kooku xanaa jar na jorem réew mi c'est un trait d'union. Hmm. amuloo kenn problème amoo kenn problème réew mi nag kuy dox jàmm war nañ ko wut. fii ñu toll nii ki mën a jiite ku gàtt ke ku njool ke ku ñuul ke ku xees ke lañ soxla. Hmm. waaw. alors diggante 2012 ak 2019 ñàkk ngeen ay responsable politique yu baree bari am na ñu daanaka ngànkoon parti bi gannaaw Idrissa Seck ñëpp di dem benn par benn. lan moo nekkoon seen problème boobu jamono diggante Thierno Bocoum ba docteur Abdourahmane Diouf ak Déthié Fall mi tey. waaw ñoolu moom li ñu moom mooy dañ ko sant yàlla te waxaat na ko samedi bii ñu jóge nee na ñu devons être fiers que ay nit ñu nekkoon ak ñun génn ci ñun fa ñu dem ñu jox leen responsabilité. jàngalekat li muy ndamoo mooy sama étudiant bi mooy président de la république sama étudiant bi ministre la sama étudiant bi directeur général la. la maîtrise commence par la mort du maître mais la mort spirituelle yàlla suñu borom seede na man ab ndaw la 2007 la njëkk a nekk coordinateur juin 2007 coordonnateur département bu Kaffrine parce que boobu Yankoba euh, Abdou Souley Kijera ko. Mm. 2008 Koungheul nekk département ma nekk responsable départemental Koungheul ba récemment kon lu bëri fii la ma fekk. pour wax la ne gannaaw sax lu jiitu yan euh, le frère Bokum départ ba de Awa Gueye Kébé. Awa Gueye Kébé si waat. Hmm. Youssoufa Diagne yal na ko yàlla yërëm. amiin Omar Sarr Omar Gueye. Hmm. waaw ndax ñooñu 2012 ñaar ñooñu ba ngeen di génn fa ngeen leen ba. Abdourahmane Diouf. Hmm. ñëpp fi lañ ma fekk seen dem ak yëpp fi ma fekk. mais tey nit da nga dem ak sa ak ka ngay àndal bu mu yàgg nag ngeen wuteeb gis-gis. Mhm. président Idrissa Seck jàpp na ne tey doxin bi barut liggéey bi barut ñaar ña ñu ngi woon ci biir ne comme barut ñun dañuy des ci biir continuer liggéey wi. Mhm. loolu nit mënu ci am loo cay sikki sàkk. ba président Idrissa Seck gisee ne dafa war a jàppale président Macky Sall daf leen fekkaat ci biir continuer njàppandal bu ñu demee tey kon ba Abdourahmane Diouf toll ni mu toll ci politique bi Yankoba ba euh, euh, qu'est-ce que je dis. Euh, Déthié Fall Thierno Bocoum. Mm. Déthié Fall nekk ñi nga xamante ne ku nekk ca coalition ba nga nekk bokk nga ci ña ko jiite. kon nga xamante ne parti réew mi xam nga lañ ko koy ñaari garab laa koy mandargaale. Mm. benn bi mooy taatu banaana balaa am njëriñ meññeef nga gor ko. Mm. mu gënee ñaar ba ñett ci jébbi bu ne dem indi ay meññeef. beneen ba mooy garabu xottu butéel du gis nga ni muy guddeeg ni muy njoole. Mm-hmm. bu dee benn benn banqaas kese lay génne bu ba nga koy dagg tànk daggoo ko benn banqaas lay am. Mm-hmm. kon faaw ñenn di dem ñeneen di feeñ. bés boo ko daggee ci taat bi nag danga gis lu mu tuuti tuuti dana génne ñetteen yeneen ñeent u juróomi banqaas. Mm-hmm. looloo xel yooyu noonu boo leen daggee loolu mooy parti réew mi xam nga ñoo xam dañuy naan école du parti mais ñun université lañ yore. université lañ yore te terewul nag ñett ñi nga xamante ne tey dañoo dem jàmm ji ñu am coloré gi ñu am ak président Idrissa Seck dama yaakaar ne tey la gën a dëgër. Hmm. ci ñi ma gis fekkee ko. te gisoo ci kenn ku génn wax ci moom lu ñaaw. waaw mos ba koo dégg. doo ko dégg. Hmm. kon laaj nañ leen ba sonn waaye kenn nangut wax. kenn du wax ça veut dire que ëllëg ñu ngi sooraale ëllëg. Hmm. bëgg du bañ day mere rek. luñ ko mere. non ku nekk la tax nga dem yaa ko xamal sa bopp. xamoo ci dara. déedéet parce que man dafa am loo xam parti Rewmi aussi slogan am benn la woon de en anglais la woon en 2006 free in free out. Hmm. entrée libre libre sortie aujourd'hui tey suñu stratégie tey mooy ñibbisi ñun opération ñibbisi lañ def. ñibbi fa di ñaan réew mi ñaan sama nijaay Pape Diouf. Hmm. ñoo bokk Bambey muy sama xarit di ñaan sama xarit Omar Gueye la ñu seq ak président Idrissa Seck du politique hmm. parce que bu ngeen demee boo tuddante doom am rek deret am na hmm. ñooñu ñoom ñooy taawu kër gi ñoom Waly ñoom Ousmane Congaan ñoom euh, Thierno Bokum ñoom Déthié Fall te wóor na ma ne man de biir na ma mën naa juum de waxuma ko ci seen tour mais li ma xalaat mooy tey deuxième tour bu amoon ak képp ku mën a dem deuxième tour jàkkaarloog Idrissa ak ñooñu Idrissa la ñuy jàppale. waaye Abdourahmane moom nee na Idi daa war a ñëw jàppale candidature am moom. waaw bëgg-bëggam la wax. te teg ci suuf basam. bëgg-bëggam la wax kenn du ko mere xam nga nit boo ko meree ci bëgg-bëggam rek sa gàtt xel ñëw. <laughs> bu sañoon comme grand frère bi ñëw te it des fois da ngay toll foo xamante ne mos naa ko wax man samay waajur bu jigéen. Mm. yaay bayil ma dem ci tool bi parce que boobu mu nga PDS ma nekk réew mi. Mm. ñuy xeex xeex bu metti ba muy neex dama ko ne yaay mu ne ma ne ko doom ju baax mooy naan ndeyam wala baayam bul xëy tool bayil ma xëy tool. Mm-hmm. bayil ma xëy tool xëy na Abdourahmane fa la toll. Mm. mais war na xam ne fii ñu toll. na xaar bu ay moromam soxla comme kilifa gi benn la tam moo soxlaagum nañ ko gunge 2024. moom kilifa googa sax fu mu toll tey ci wàllu politique boo ko doon natt Idrissa Seck. demal ci sondage yu tey rek. Hmm. gis nga départu mbaam nañ ko moytu mooy bërët. sondage yi ñu def fan yi dañoo ne bërët premier jour am leader boo xamante ne ci vingt quatre mille ñun ñu nekkoon moins de mille. Hmm. tey jii jii jii fii may wax ak yow nii nii nii tey ñoo ko raw. fu ngeen toll yéen. ci quarante et un quelque. Hmm? moom mu nekk quarante mille. c' que choix nañu def on choix de la raison et non un choix du cœur Souleymane Ndéné Ndiaye l'a dit Souleymane Jules Diop l'a dit le candidat de l'euphorie le candidat de l'amateurisme loolu man maa ko waxal sama bopp ku ne xam na fa mën a féete ak le candidat de la sensibilité juvénile mais aujourd'hui le candidat de la maturité de l'expérience de la sagesse d'homme d'État ce n'est personne d'autre que Idrissa Seck ku bëgg stabilité ak continuité dans la gestion de l'État en terme de réalisation d'infrastructures en terme de réalisation dans la vie politique en termes d'emploi de création d'emploi Idrissa Seck la gis nga njiit na ko mat sa ñaari doom dañuy ne ci kër nga bëgg lool kenn ki bàyyi kenn ki mais gis nga buñ ne bërët dox dañëw jubal si la xam nga ko ci yore tànk kilifa. Mm-hmm. ay waay Idrissa bu taxay ba junjung ngi jiin ñu ne fanfar bay jiin mu yëkkati tànk tegaat tànk rek nga xam te tey yéen journaliste nag li ma leen di ñaan yow yéen waa CORED yéen ñi nga yore association des jeunes journalistes du Sénégal. Hmm. lu tax du ngeen xeex tey demande comme li ñuy def en France wala dans les autres grandes nations un débat politico-économique et financier entre les prétendus et probables candidats. Hmm. ci seeni programme surtout. surtout ci seen i programme ak doxalinu Sénégal ak doxalinu adduna bi parce que boo yemee ci saw programme rek hmm. baaxul. waaw ñaari programme yi daje ñu xool askan wi mën a tànn. yow ton programme au niveau national dans tous les côtés économique finance sociale fan nga ci tollu mais dans aussi l'inter ou la sous-région. Hmm. Parce que le Sénégal aujourd'hui à l'heure ou à la croisée des chemins. Bien sûr. Nous sommes dans un cercle de feu. Hmm. Le Sahel qui nous entoure et la stabilité Nous avons AQMI au nord avec la Mauritanie wër et à l'est avec le Mali. Mhm. Instabilité pouvoir politique bi am Mali avec le djihadisme. Instabilité bi ne Guinée-Conakry. Le balbutiement qu'il y a en Guinée-Bissau. La démocratie bi nga xamante ne commencé naa souffler avec le pays frères ou la seizième région du Sénégal baal ma ci kaddu gi. di mhm. jégalu waa Gambie. Mhm. parce que dama jàpp ne ñun ñoo bokk ndey bokk baay. te mu nekk biir Sénégal. waruñu accompagner loolu. Mhm. ñu xool océan Atlantique bi nga xamante ne ñett ñi bëgg yàq àdduna bi leen rek lañu dese parce que ñaara am pour xeex suuf si. jaww ji ak géej gi. Mhm. suuf si tey ñoom nangu nañ désert bi saay saay si nangu nañ désert bi jaww ji xëy na du yomb ci ñoom. Mhm. mais ndox mi lañ soxla. waaw ah. te Sénégal est la façade maritime. te it nag ki nga xamante ne tey yaa ko gën ceq daf la njëkk a jënd ceq sol jënd përëmam sol wala jël jaaro oh, xaalisam sol di ci bakku di ci reetaan nga am saw jaaro or ngay def ndànk gaz beeg pétrole bii grande institution wala état yu mag yu bëri tey xam nga ne buñ sañoon du ñu exploité parce que bu ñu exploité ña leen soxla dootuñu soxla ci ñun la ñu ñëw mhm. ñooy gën a compétitif su ñun ñooy gën a jóge bateau pétrole déparé fi dugg France bateau pétrole déparé fii dugg États-Unis bateau pétrole déparé fii dem Grande-Bretagne moo gën a yomb foofu bateau gaz jóge Russie uutali France wala mu jóge Russie uutali États-Unis mhm. réewu arab yi fii moo gën a jege mhm. kon loolu it nañ ko waxtaanee te xam ku koo xamante ne xam na demb xam na tey mhm. te mooy sa Seck ci sa xalaat mooy Idrissa Seck Idrissa Seck mooy démb Idrissa Seck mooy tey mooy tey ñëpp waxoon nañ deux mille vingt et ne pare na ci. Mm. ah tey de kilifa yu mag moom la ñuy tudd. bi mm. woo nag ñi nga xamante ne toute la jeunesse sénégalaise nañu def attention te bu ñu fooyee li ñu am bu ñu fooyee li ñu yor. di jaajëfal Macky Sall ci démb tey kàddoom démb mooy kàddoom tey. Mm. mooy respect sa parole d'honneur. looloo taxoon bañ ko bun xataale mu bàyyi lépp dem wutali boppam. Mm-hmm. mu def lépp la mu bindoon ci livre bi man dama mos a waat ne président de la république Macky Sall du mos a defa nekkaat candidat. Hmm. ñu ne ma da ngay nax sa bopp ma ne leen parce que moo ko waxoon bind bu ko bindu doon sax mu jaaxal ma. Hmm, mais mais moo ko bind ci livre am. le Sénégal ok j'enclenche mon premier mon deuxième et dernier mandat. Hmm. respecté na kaddu googu nekk na loo xamante ne wonaat nañu ñun xale yi ñun ndaw ñi. lan mooy kaddu parce que nit kaddu bu jibee rek jeex na. démb ak tey mooy président Macky Sall kàddoom nga mu respecté. Mm. démb ak tey mooy Idrissa Seck nga xamante ne nit ñi dañu war a jàpp ne dafa mel ni dollar day yëkkatati yéeg yëkkatati wàcc. te bu wàccee it loolu mooy mën a permettre xale yi ñu mën a jébbi parce que mag ñi waruñoo tax toog ci kaw xale yi. Mm-hmm, rek bañ a wàcc. démb ak tey bi itam fii la ñu koy yemale François Calixte Sagna ñu ngi lay gërëm secrétaire général adjoint bu parti réew mi amoon nañu mbégte loolu dalal la ci waxtaan wi doon dellu siwaat euh, ci euh, tegug loxo Idrissa Seck fukki fan ak juróom weer juillet atum 2005 moo nekkoon li lay taal waxtaan wi mbiram chantier Thiès la yow woon jaaree euh, ci loolu waxtaan ci jaar-jaaram ak jaar-jaaru parti réew mi mu jiite tey te ngeen bëgg a jiite réew mi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf Fatou di la sant di la gërëm di jégaluwaat ñi nga xamante ñooñu doon déglu ku ci déglu la naqarit ndowut suñu coobaare dañuy jégalu te di la saafoona ne ñëpp jàppale président Idrissa Seck fii ñu jubal ndax réew mi ànd ak jàmm réew mi ànd ak dal ndax ñu fekkee ko déwén da mën a wax démb la woon tey jërëjëf. jërëjëf émission mun ngeen nga teewluwaat ci seen euh, chaîne YouTube euh, réew mi TV officiel euh, di gërëm Diaw Diallo mi ne woon ci jàppandal gi ak Léon Paul Mendy Fatou Thiam Ngom ci kaddu gi dégg daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen ci démb tey yendu leen jàmm